waaye lu dul lii maanaam lu dul xam yàlla ak dund ko ak di ko jaamu caaxaan la fuduulun ay ndesit rek la waaye du dara fayda it ay góoram mooy ñu mel ni mooy ñu mel ni ñuy dund yàlla mu ne woon wala maa kataba ba mu dogale yàlla yàlla hmm. an baqeet mu des baqeetu ndesel min ha min haasil ajaali ci la diir boo baqee mu des amalul mbébét boo xam ne yan bitu dana yëngatu fii qulubi rijaali ci xolu góor ñi mhm. baxasa ci la baxasa ci la yónni allah yàlla al faydatu tijaaniya faydu tijaan wa saaxiba ak boromam ba nga xamee ne ñu mujj ñooñu alquran doon junj mhm. ci wax ju njëkk ja mbooloo moomu alquran doon junju nga xam ne yàlla rek la ñuy dund ba yonent yi doon di leen ñeen ci maqaam woowu ba nga xamee ne ñooñu ñëwaguñ wala boog mission boobu dégg nga war naa wàcc te wàccagut kon am na mbébét bu des bu doon mu leneen lu war a ñëw rek yàq-yàq yi ñu fa fekkoon jamono yooyu yonentu naan dafa am këdër mooy ci digg ba dafa nax nax ak fàtte yàlla nax ak dund leneen dul yàlla nax ak gënale àdduna ci dégg nga lislaam mhm. naxab wut àdduna ak nguur dégg bu doon leneen warul ñëw dabaatal ko kon dañ naan mbébét amut waaye am na leneen lu war a ñëw kon mbébét des na mbébét googu nag mooy fayda ba lii xewee ci la ko yàlla xebal xebalaale boromam fan jalaa mu wuññeeku allaylu guddi réer wata dafaqa mu jañu asaylu yoon lépp xam yàlla ak dund yàlla ak xam-xam ak jaamu yàlla woon fataxat mu ubbeeku al bët ya gumbaxoon ci gis dëgg banda ramadin gannaaw wanentu saalin ba aji lakk seen bët wa taalin ak bu tat wanta achat mu sawar al alsunu làmmeñi wa ratabat mu tooy moom làmmeñi bi zikrillaahi sud yàlla fayda boobu ba mu ñëwee xam nga lu mu liggéey liggéeyut fii man la déedéet dafa daq dàq anaaniyatu nit ki man la man la gi fi jëlee samp samp fi man la yàlla gi képp ku dellu sa man la googu nag yaa nekk ci leneen waaye fayda moom man la taxut koon a jóg dafay génne réeree yàlla indi fi xam yàlla gu mat sëkk mhm. ba yow li yàlla wax ci alquran yow dëggal nga ko afillaahi shakkun yàlla dafa dem bay bay laajte ndax yàlla sikk benn am na ci yow nga ne jullit nga yow nga ne yaa ngi jaamu yàlla yàlla mi ngay jaamu xaw ma ci dara de da ngay sikk sàkk sa borom de alquran alquran a ngi wax ak yow naan la afillaahi shakkun ndax yàlla sikk am na ci fekk demoo ba am yaqin ci sa borom bi ngay jaamu mu hóor la yaa ngi ci erreur yaa yàlla noo ko imaginer rek juum boo ne mu ngi fépp te yaa ngi fi asamaan ak suuf a ngi fi waxoo dëgg da ngaa juum wala mu ngi ci asamaan juum nga yàlla du toxu mënu nekk fépp ba pare di toxuwaat ci asamaan loolu waxi dof la amul noo mën a imaginer yàlla te doo juum léegi nag kiiraay googu nga nekkee ba yow amul lu la xóor sa borom kooku alxuraan nag la wax ne génnal ci lii naan la afillaahi shakkun est-ce que yàlla sikk am na ci déedéet yàlla sikk amut booy sikk rek xegg goo ci yàlla jaamuloo xamul doy waar waaw faarifoo ne xablaan taabudun am na ñuy jëm xadis boobu xadis boobu même bu fekkoon ne wérul sax maanaam moom lu wér la yàlla mënoo koo jaamu te xamoo ko kan ngay jaamu yàlla ban yàlla ah, Casamance la nekk man daal xaw ci dara mënu mënu laa jaamu xaw ma moom dara mais ki ngay jaamu dafa soxla nga wéetal ko ba pare nay wéetalee koo xam ne ni xamoo ko da ngay def ngir moom kese te yow xàmmeewoo ko defal ngir man te xamoo maay kan nooy defee ngir man yàlla bu la tegalee sellal ba pare hmm. ne defal ngir yàlla rek ba pare nag door laa wax li ngay def na la jëf ji boo ko defee sax te te yàlla rek taxu sax baaxut la laa wax na la fexeel xam yàlla moom ba xam ko moom kese war def leneen dégg waaye bu dul loo rek ah, pay baa ngi naan fi laay shakkun ndax yàlla am na sikk loolu la yonentu wax daamaa yëri bukk ilaa maa laa yëri bukk bàyyi loo xam ne nii da nga ci am sikk dem ci loo xam ne amoo si benn sikk maanaam daf lay bëgg wax ne toujours day wuti xaqiqa day wuti lu leer mm-hmm. yonentu loolu la la bëgg a jàngal nii ne yaakaar ne yonentu wax dafa gàtt waaye maanaam dafa yaatu laa moon dal wuti xaqiqa lii leerul la demal si lu la leer mm-hmm. waaw fexeel ba xam yàlla li njëkk pour nga am ci lu leer li ci gën a yell mooy sa borom am lu leer sa am ci yaqin mm-hmm. nga xam kan ngay jaamu ak kan mooy borom bi su boobaa kenn dootu ci nax nga mën a def te yàlla moom rek tax koo xamul mën koo liggéeyal ndax man nga koo mën ngaa daje ak moom sax gëdd ko walla nga beccingal ko fekk xamoo da nga koo xamul moo tax kon ëwalan war ngaa xam yàlla ndax doo weddi yàlla boo xamul yàlla da nga mel ni kuy liggéeyal yàlla fekk yow da ngay weddi yàlla boo xamul yàlla parfois da nga mel ni kuy xoote jëmee ci yàlla fekk dangay dàq nit ñi ci yàlla bàyyil sikk bi nga nekkee dem ci loo xam ne benn sikk nekku ci te mooy xam-xamam yaqiin yéeg yàlla bu baax a baax hmm? su ko defee faydu foofu la yóbboon nit ñi nit ñi nañ ci yàlla mu dindi gumba googu bañ mën a xam seen boroom xam gu xóor mu ballal leeri xam yàlla ci ñoom mu feeñ seen xol feeñ seen cër feeñ seen làmmañ ba feeñ seen jëmm làmmañ yi sawar nag di tudd yàlla gannaaw nga xamee noonu ta nañ ci tudd yàlla làmmañ bi tudd yàlla sax téyegut ne mooy tudd far bal sax yàlla yàlla tudd seen làmmañ yi ñoom yàllaay tudd yàlla seen làmmañ ñoom egg nañ foofu ah yàlla nag dana tudd ci làmmañu doomu aadama ndax tudd na yàlla ci làmmiñu garab ga inna nii ana laaw garab ga wax na ko garab gi moo wax Moussa yàlla ne nuudiye woo nañ Moussa mi na sijarat garab ga an yaa Moussa inna nii ana laaw yàlla moo waxoo Moussa waaye ci garab la ko wax fa ne maa yàlla yàlla mu mën wax garab mënul wax maa yàlla ci làmmiñu doomu aadama mi xalifaam ah kay looloo gën a wax na yonent bi wa in ahadun min almushrikina istajaaraka a ajirhu hatta yasmaa kalaamallaahi kalaam boobu kalaamu nabi la wax yonent bi la waaye yàlla kalaamullaahi la ko tuddee wax yàlla la ko tuddee bu la xeewee ñaanee jàmm ak dal may leen bañ mën a toog dégg wax yàlla ji ci wax yonent la waaye kalaamulaahi la ko yàlla tuddee yonent bi yàlla wax na ne su bëggee jaam moom mooy nekk làmmeñam bi muy tuddee waaw su fekkee yàlla mooy sa làmmiñ kay làmmiñ boobu kay buñ ne yàlla wax na ci warul laa jaaxal warul sori si yow su ko defee nag am na ñoo xam ne yàlla lay wax seen làmmiñ waaye ñoom waxuñ dara waxuñ dara loolu nag la fay di bëgg nga yegg ci waaye xuraafaat àddina yi caaxaan yi ak ak lu aati caaxaan yi taxu koo jug taari àddina yi taxu koo jug وانفتحت موبيك القلوب قال على نور المعرفة تلير قم بالله تيالا وزود الأخيار أدد تنفي في الوعات تاغاني أدني والنفايات نسيتي أدنى يوسفي دينغ مانام فايدي بمنيوي دابا فخي tànneef yi ñoom dëddu àdduna ay àdduna ko ko dëddut mu dëdd la de lu la yàlla aaye nga bañ koo bàyyi bis dana ñëw force nga bàyyi ko taari àdduna yi boo yaakaaree mooy taar boo jënoog taari yàlla yi xeeb la nga nekkoon réccu réccu goo xam ni dara dootu ci maanaam njëriñ dootu ci am mooy lu olof di wax ku marta xanaan fóotit bu rëbbu ne rëbbi ne ubbee nga rus bis boo yàkkamtee xewal ba tax nga yaakaar ne àdduna mooy kër ga taari àdduna yi tax lu ne ñeme nga koo wax lu ne ñeme nga cee dugg bis bu dégg nga bu la yàlla wuññilee taaram yi nga gis mu tànn jaamam yi dugal leen ci taar yooyu ak xewal yooyu su boobaa da nga rus da nga réccu réccu goo xam ne ni du la jëriñati dara fii di dafa bëgg nga dëddu taari àdduna yii jublu yàlla jublu yàlla waaye duma ëpp àddina mooy fayda irtabatu ñu takkaayu billaahi ci yàlla irtibaatul furuuci comme takkaayu banqaasi bi usuliha ci seeni cosaan ndeysaan fexe ba lépp delluwaat ci yàlla ñëpp di dëgërloo yàlla di dimbandikoo yàlla te naan yàlla rek la loolu mooy fayda te naan yàlla rek yàlla nag boo ko xamee doo xam leneen soo xamee leneen rek xamoo yàlla <coughs> dégg soo xamee leneen rek xamoo yàlla lii moo taxoon jug fayda mais du caaxaani àddina yi moo ko tax a jug du taari àddina yi moo ko tax a jug tubaab yaa ñu ko ëppale foofu su boobaa ñooy sëriñ si kon waaw lii tubaab yaa ñu ko ëppale foofu kon ñoom ñooy sëriñ si lii taxuloon a jug fayda léegi nag su ko defee boo xàmmee li taxoon a jug fayda te mooy fexe ba nga yegg ci yàlla rek la gannaaw gi ngay xool maanaam jaam war naa dem ba yëg na yàlla rek la su ko defee nag mu jël sariyaatu teg ci kanamam léegi nag sariya moo koy wan teggin yi tëjiliyaat yàlla yi di soxla yàlla rek moo fi nekk di def ay tëjiliyaatam ay waayam mais feeñ waaye bu nekk rek am na teggin gim laaj teggin boobu yonentu la ko gën a xam na yonentu doon joxe yàlla teggin yi loolu mooy shariatu moom la waaye wax ne ne wa qaddim imaaman kunta anta imaamuhu jiitalal imaam boo xam ne ni moo doon sa yow yaa doon imaamam moom la doon waxaabi bi di firi te xamul liñ ci namu di wax musiba yu ne naan ñoom dañ laa jiital rek waaye gis nga ñoom ñoo jiitu ñoom jàpp nañ wala boo dañ laa jàppee yàlla nangam nangam <laughs> xam nga boo duggee ci xam aw nit boo nekkee ci bit bëgg a ñu nekk ci biir da ngay jub da ngay dugg ci biir ba pare xam la fa nekk door a mën a wax fayda dund yàlla rek la yëg yàlla rek an ta'budallaaha ka'annaka taraa bu ñu laajee lu fayda waxal loolu la loolu la maanaam nanga jiital imaam boo xam ne yaa ko jiitu woon mooy bu njëkk yow sharia sa gannaaw nga ko tegoon di def lu la neex jiitu sharia tay nak bo demé ba xam yalla tegal sharia sa kanam xam nga sharia moy lan moy teggini yoonent bi doon jox feñ wa yalla teggini teggin yëpp attunoo ko waaye yenn ci teggini mom lañ la andil su ko defé yow bo xamé yalla ba paré da ngay melni ni xamné da nga taxaw mëno jëno tegg lu dul sa borom boobu waye feñ waye bu feñ rek xam nga né yalla ko feñal mënu ci gisi leneen lu dul yàlla waaye nag am na lu mu lay joxoñ feeñ waaye boobu lay joxoñ buñ noddee yàlla am na lu mu la bëgg wax de teggin gi mooy bàyyi li nga doon defee nga dem jàpp julli tegg loolu mooy teggin gi teggin geeg feeñ waaye bi yëpp yàlla rek waaye boo ci bàyyi rek am problème ñu tooñ la pay baa naan la muñal loolay teggin examen bi yëpp yàlla lay examen foofu de mu neex mu ne la santal mu feeñ feeñ waaye boo xam ne yow mooy nga yàlla mooy la tuubal bu fa nekk di laykat comme Iblis tuubal nga topp yàlla mooy la bu yëg sa bopp de wa bikum min ni'matin laa minallah delloo ko yàlla shuhudun minna yëgal na yàlla rek la bu defee lii moo tax a jug fayda yow tamit na xoolal xoolal sëriñ bu mel nii nga ànd ak moom ci ku mel nii mu yeggal la ci fayda mhm. du fayda nga bëgg dangay xool koo xam ne jikkoy fayda mu ngi ci moom hmm? mhm. waaye bul xool ku bari wax rek xamul dara ci fayda nga ne moom ngay topp daf lay sànq rek daf lay sànq rek bàyyi de waxoon ay taalibeem ne leen ku yàlla wala boog xeet bi yëpp sax ku yàlla jox yonent bi gën ci yonent yi hmm. diine ju gën ci diine yi téere bi gën ci téere yi nga am borom boo xam ne moom rek mooy borom hmm. warutoo def sa bopp xale warutoo def sa bopp dof boo xam ne ku jot nax hmm. waaye nag ku tëdd jël paak joxe ñu dee rendi bul ah, ku ñëw rek nga ne ne la maay waajee waaj lu la wax loo rek nga gëm yaa yàq sa bopp bàyyi noonu wax ne ñu bëri ci sëriñ ci ay buur lañ waaye duñ sëriñ taalibe yu bari ay dag lañ waaye duñ taalibe taalibe mooy ku bëgg yàlla gis ku ko gën a jege yàlla nga ànd moom ci melokaanam bu yàggee nga jege yàlla waaye bu fekkee yow ki nga ànd ak melokaani faydu yoru ci dara nga ne na nga am fayda doo am dara ki nga ànd ak ay melokaanam ngay am kon loolu daana jàngal ne faydu li ko tax a jug waaye tamit ñooñ faydu it nii lañ war a mel ni lañ war a mel dégg te ñu moytu xiyaas xiyaas mooy lu sànq iblis comme mbir mi nii la demee rek kon nii war naa mën a nekk looloo sànq iblis ndax man dañ maa bind ci suuf ci ci leer maanaam safara kii ñu bind ko suuf man ma jaamu yàlla ay atiyaat kii jaamul yàlla kon maa ko war a gën looloo ko xalaat moom moo njëkk a njëkk a xiyaas gu baaxut nañ ko mooy du xiyaas yëpp bon nag su ko defee nag am na ñoo xam ne nii la leen sànk ci fayda mooy xiyaas xalaat rek ba teg mbir yi fuñ ko waru teg xam nga xiyaas dafay ànd ak xam-xam mu dëgëral waaye koo ne yàlla dimbale moom matagut amul xam bu mën a nattee teggin yi nga xam ne nii moom la war a jox moom ci tëjëliyaat yi xàmmeewut ko parce que daraay sharia amu ko yàlla rek laa xam waaye teggi ni ma war a jox yàlla xawma ko te teggi yooyu boo ko xamul ñu dàq la xam nga yow ànd ak yow wóoru bu ko defee ci xiyaas yooyu bu yàggee ngeen sànq xiyaas amul benn cosaan danañ am baas nag buñ sukkandiku ñaareel képp kuy xiyaas dana am sukkandiku waaye daf ciy ay xalaat yoo xam ne xalaati boppam la su ko defee nag yooyu mu jox la ko yow taalibe bi nga jël ko naan la man sama sama xam yàlla gi kenn xamu ko ci àdduna bi man rek maa ko xam wax na dëgg moom rek moo ko xam ndax daf du njub yow boo toogee foofu xalaat say caaxaan bopp man mën naa ko xam ak du njub di jëlal alxuraan nga yokk ci saar wu ci bokkut nit ñi danañ ko xam julli ñëpp kenn du ko xam yow rek yaa koy xam parce daf du njub loolu dafay am léeg-léeg ñu askanoo ci fayda dem xalaat seen xalaatu bopp créer seen seen xam yàlla ak bokku ah xalaatee ko ci loo xam ne cosaan li man mën naa am na wér la waaye lii moom wérul indi la ne aywa lii la man rek maa ko xam loolu sayru eh, lisaan la wa xurufu sayru làmmeñ ñi ki rek bébatu rek kebatu rek kebatu rek jël ko bind ko ci kaye mokkal ay kaye ay kaye yoo xam ne yoo xamoo ci dara baat yi sax li muy firi xamoo ko mën naa am sax bind ko ci arab la muy firi sax xamoo ko ñee nga xam nga yàlla yow moytu leen seyru yooyu seyru seyru qulubin wa shuur la sey doxab xol ak ay yëg-yëg waaye du ay seyru làmmañ ak ay araf yoo mu njëriñ dégg su ko defee loolu yi na ko taalibe yi xam ñu xam ne it bàyyi wootul fi ne hmm. nit ñi dañu gis yàlla fii ci àddina waaw lu tax parce que bàyyi koo demee ci tafsir tafsiram mu ngi ne la yàlla kenn mënu koo gis ci àddina mel nañ ko laaj lu aarifu ne di wax ne mooy loolu beneen affaire la aarif bu fa yegg dana ko xam ñu bëri dañuy am xijaab ci foofu yaakaar na ñoom yàlla mii yàlla ci waxam rabbul alamin la ñuy jënoon fekk dara nekkul ci wujud gi illa sifatullahi wa asmaahu melo yeeg tur yi rek waaye yàlla kay moom mënu koo gis Hmm? waaye mën ngaa yëg yàlla nag bu doo teewlu leneen lu dul moom mais melo yi ak tur yi rek moom ngay moom ngay jënd waaye du moom dëgg-dëgg moom ngay gis ñu bëri na yaakaar nañ ne buñ yegg yàlla yëg yëg yàlla mu neex lool dañuy jàpp ne dañoo dagg mboolem kiiraay ba dellu seen cosaan fekk walaay demeewul noonu tàngoor waa leen jàpp rek xam nga safara boo ko jegee tàngoor mën na jàpp ba yow sa bopp yaa ngi yëg lakk-lakkab tàngooru safara bi waaye taxul ngay ngay safara sele wala nga yegg fa de mhm. boo ci jawaalul maani ci paas ci xaaju ñaari bi paas cinq cent cinquante euh, quatre-vingt-sept dégg ci bi nga xam ne ki ko defar mooy Mouhamad Raadi Kannoun al Idrisi boobu paasu ñaareel ba Cheikh Tidiane dafa wax lu am solo kuy ci fayda di woote ak xam yàlla war nga ko bàyyi fa mhm. mu ne yàlla dafa am ay kiiraay yàlla moom defee tëjal lii rek kenn mënatul gis moom dafa am kiiraay kiiraay gu njëkk gi mooy kiiraayu kibriyaaw mu ne lool kenn mënu koo xotti mhm. bay xegg ci cosaan la kiiraay ak ñaareel ga mooy kiiraayu xaqatu muhammad ya moo nekk si diggante yàlla ak mbindeef yi kiiraayu xaqatu muhammad ya mu ne moom it am na yeneen kiiraayu layaan yu ko xiir yoo xam ne kenn mënu faa yegg mhm. mu ne nit bu mu yaakaar mukk yegg ci xaqatu muhammad ya dagg kiiraay yi nga xam ne ñoo nekk ci kanam xaqatu muhammad ya loolu mënu nekk jàll kiiraay yooyu ba yegg ci xaqatu muhammad ya mënu nekk dégg mu ne mbooleem feeñ waaye yàlla yépp ci gannaaw xijaabul kiiraayu kibriyaaw googu la ak kiiraayu xaqatu muhammadiya ak ci kiiraay yi nekk ci kanam xaqatu muhammadiya maanaam tijiliyaat bi yàlla def ci kibriyaawam ak ci xaqatu ak yeneen tijiliyaat yi feeñ ci kanam xaqatu muhammadiya seen gannaaw ci lay tijiliyaat yi di upp ñun ci yooyu lañ mos ko mënugul yegg ci xaqatu muhammadiya noo yeggee ci jëmm yàlla ji nga yaakaar ne da ngaa xëtt affaire yi dem ba ci cosaan li mukk du demee noonu de moo yàlla nañ yàlla may xàmme yàlla wax na ne xegg ci yàlla ci bunt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te kenn mënul xegg ci yàlla lu mooy nga jaaree ci yonent bi mu ne mooy nga topp chériam xenc yoonoom jikkoo jikkoom di tegginoo ay tegginam te yàlla rek tax ba yàlla may la nga mën a yëg na mel ni yow yaa ngi mel ni kuy jënoog yàlla lool rek mooy yegg ci yàlla gi de mu ne ci noonu lay jaam di yeggee ci yàlla bu kenn mënu yegg ci yàlla mu ne kee gi ci yàlla bu fekkee dafa bëgg kiiraay yi din dindeeku mutlaqan kiiraay yi nekk ci kanam xaqatu Muhammad yee dañ muy xuus xuus ba ci fa mbir ma cosaanoo xeggi ci yàlla léegoo gu sell bu si lu benn kiiraay mu ne wala mu jéggi kiiraay yëpp ba ci gannaaw kiiraay Cheikh Tidiane ne faada amrun la sabila ilayhi wala matmaa li ahadin fi darki nee na loolu amul yoon woo ufanil mën a yeggee te jërul nit di yaakaar xegg foofu gannaaw bi lan la leneen lii lay bàyyi wax ne gis yàlla fi ci àddina mun nekk parce que nga xotti affaire yi ba ci cosaan li mun nekk nga am kiiraay nekk sa kanam yoo xam ne mënoo ci dagg benn nga yëg yàlla hmm? yàlla na yàlla may yëg ko parce que àddina bu yàlla bu def tëjëli du def tëjëli ci benn côté wala ci benn côté na yàlla fépp la nekk parce que moo tax bàyyi ma lay li tax gis àdduna yàlla fii ci àdduna nekk rek war nga cee xam lu tax lool mais wax na ne fii ci àdduna bu yàlla defoon tëjali xeefeer yeeg jullit ñi ñoo ci yem <laughs> ñëpp a moo ñëw moom dafay effacé lépp bu ñoo ci yem <coughs> fii du place ba dégg waaye mm-hmm. daan na wax na ne aarifoon yi la ñu wut duñ fa yegg ba mukk mm-hmm. ndax mënuñ koo def ndox naan ko mu mënu nekk glace balaa ngaa gisee sa sakirtu bi xamrin in hamamtu bi shurbihi bi ni naa sàngara ci ba ma ko bëggee naan xam ko leneen la de keneen la de loolu lay wax toujours ne man ngaa comprendre maj suub bi taxaw ne moom yàlla rek la gis waaye maj suub boobu na yàlla rek la gis hmm? Hmm. waaye aarif bu xàmmee moom moom dana xam ne ay melo ak ay tuura fi moo fi nekk mbir mi ni mel daal mooy moom laay wax ne mu ngi mel ni jibril mu ñëwal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci melo doomu aadama saxaaba yi gis kuñ gis jibril jibril lañ gis jibril nit la déedéet ndax gis nañ jibril ci meloo dëgg-dëggam ba ndax ki gis nii du jibril kon léegi gis nga jibril te gisoo jibril noonu la yàlla mel nag walillahi almasalul aala jibril ci meloo dëgg-dëggam ba xaju ci dëkk ndax laa fi bu ko ubbee rek fees na asamaan ak suuf dafay waddal ay wurus ndax rafet melo du moom la saxaaba yi gisoon de ndax loolu xaj na sax ci néeg nit la comme ñëpp yàlla mi man loolu nag jibril mi yaatu moom mu feeñal la ko ci melaw yii mën naa jël tur wu nekk ci cosaanam def ci tijiliyaat mu feeñaat ci beneen melokaan woo xam ne ni melokaan woo moo la xiir cosaanu tur woowu tànk yeggoo ci cosaan li nag gisoo yàlla ci dëgg-dëggam mais gisoo leneen lu dul moom hmm? su defee loolu la loolu bàyyi wax na ko si yenn kaset yi kuy déglu da nga ko gis dégg wax na ne eh, jaam hmm. pour ñu delluwaat pour lépp delluwaat ci cosaan la ba nga gisee waat mbir mi nam nekkee woon ci dëgg-dëggam faw dem ba lépp jeex moom laa waxaanoo wa ilallaahi turjaul umuur ci yàlla la ñuy delloo mbiri lii nga fi gis mooy umuur yi umuur yii nag te taxul leneen dafay nekk de waaye daf du mbir mi ca cosaanam ah noonu la deme léegi nag lii lépp dana delluwaat ci cosaanam kama badaakum taauduna tëjiliyaat yi lu nekk fa mu jugee ku ne xam na ko ndax la fa nekkoon moom kese lépp ci moom la jugee ba mu fay jógee ni mu meloon lépp dana delluwaat foofu kama ba daaw kum temps doon ni leen commencé rek noonu lañ leen delloo waaye laay turjoon umur ci yàlla ñuy delloo mbir yëpp leeral na ko foofu ci kaset ci wax ba ci tamit yaakaar naa ci tafsiram bi leeral na ko fa wax na ne bis bu demaatee ba ëbët nekk seetu azal la doon la nekkoon ca ca di feeñ fii ci ëbët su boobaa mën danañ dem ba lenn lu nekk dellu ci cosaan foofu wax na fa wax joo xam ne mënuñ see xóot mm-hmm. hmm? noonu la junjit ci beneen kaset ne su fi demee ba xaqaax yëpp jeex mm-hmm. aaxu rek def tëjël yi ndaw wéetaay buur bu tabe bi dana yor ay mayam du gis kum ko may ñii yaakaar ne ci àdduna lay wax ab maqaama lay junj mais bu dee ci àdduna xanaa borom maqaama boobu moom du borom may kook yàlla gis na ko may may jaamu yàlla yaa ngi fi wala yàlla yi moom duñ fi jug ba mukk bu dee yàlla xiraa la foolu yonentu nekk Cheikh Tidiane fa jaamu yàlla yu bëri nekk fa ñu doon jaamu yàlla yu yàlla nekk fa àllaaxira yàlla gis na ko may mayam gi ndax aljana nga fa waaye loolu gannaaw bu demee ba nekk delluwaat ci cosaanam aaxiru rek def tëjëli ndax yàlla wax na ne bu fi lépp jugee moom rek moo fi moo fi des walillahi miraasu samawaati wal ard waaw lépp lépp lépp kullu shay'in haalikun illaa wajhahu lépp dana xalku bis bu demee ba lépp ba cosaan li rek des foofu lay bàyyi wax na wéetaay su boobaa leneen doo ko gis sax foofu nag nga mën a jënoog yàlla ci xaqiqatu ma ne glace ba mu xasee nekk glace mënatoo gis ndox pourtant moom la de waaye tànk tojut seewaat ba delluwaat ca melo ndoxam boobu mënoo mënoo gis ndox waay parce que am kiiraay gu dox sa diggante moom ba mu nekkee glace nag kenn du ko tuddeeti ndox glace lañ koy tuddee dégg nga yow boo ko ndox rek da ngaa amul xam hmm? kon su ko defee xàmmee am solo la loolu ci la ñuy fay di di xoo waaye woowu ñu ci jël glace def ko ndox jël ndox def ko glace jaxase pétale ak yooyu koo xamul yàlla koo xamul yàlla koo xamul yàlla dégg xam nga koo xam yàlla wala nga am fatu doo wax ne doo wax ne yàlla da dafa fekk dara maa am benn waaye bu moo laaj loolu mu ne ma oustaz yàlla mën na fa fekk asamaan ak suuf ma ne ko déet xanaa dafay mos a jug boobu moom boo jàppee yàlla mos na fee jug rek ah na war a wax ne yàlla mën na fee fekk dara waaye boo jàppee yàlla mosu fee jug kon fekkul fi dara hmm? koo xam ne lu am yaa ko amal te ko amalee yow rek yaa fa ne noo fa noo ko fay fekkee ah loolu mën naa ne loolu mën na boo fa mësee jug daal yaa fekk dara waaye bu dee mosoo fee jug ah waaye fekkoo fi dara kat lii lépp diw fi la ko fekk mooy tekki ne loolu moo daf nekkoon te diw nekkul fi diw ñëw fekk ko fi loolu nag dafa jomb caaq yàlla kat loolu moom ab théâtre la mën a doon waaye mënu nekk wax waxi ko xam yàlla wala ba nga jàpp ñaari yàlla dafa am te fay di nag ñaari yàlla moo ko fi yàlla parce que léeg nga dégg nga dégg ku ne faydale askano ba ne yàlla moo fi am yàllaay rëboo am yàlla joo xam ne yàllaay rëboo la mu yàlla ji nga xam ne moom ngeen jàpp na mooy yàlla kooku yàllaay rëboo la yàlla ji na nga xam ne mooy yàllaay nit mooy xam le yàlla moom moo la mën a xamal nangam ak nangam ak nangam yàllaay rëboo fan la mën a am fekk contraire bu moo am yàlla ji nga xam ni moo yàlla rek mooy jëf loo lépp du sama loxo bi moom moo lay jox waaye man maay jëf loo loxo bi léegi moom jàpp na ne gis na ne loxo bi mooy yëngatu mooy def nangam mu ne kon loxo bi mooy dëgg-dëgg bi bee mooy rëboo bi cubb bi waaye loxo bi mooy joxe boo jokkuwutal loxo doo xam nga loolu ak réer la yàlla rëboo amu fen yàlla ji rëboo la mais bii nii mooy mooy kii mooy joxe hmm? ñaar yàlla am dal yàlla joo xam ne xaybu la kenn mënu faa yegg ak yàlla joo xam ne nii moom dégg nga bu yàggul la door a juddu te dafay dee ah yàlla jooju man soxlawuma ko ndax yàlla ju sosu la te te daf fi jooju yàllaay bokkaale kat yi la waaye nekkul yàlla ñu wéetal yàlla ñu wéetal yàlla ñoom bañ gisee benn yàlla mënuñoo gisaat beneen yàlla moom la bàyyi di wax mustajamaatu maa xashiitu ba ma defee jamu ragaltuma defar mënoo wéetal yàlla ba pare di ko bokkaale waat su ko defee am na wax yoo xam ne loolu moo tax a jug fayda mhm. fayda dund yàlla ak delluwaat delloowaat ci takkale banqaas yi ci cosaan yi takkale banqaas yi takkale yi ci cosaan yi moo ko tax a jóg mhm. yow da nga yëg ne yow mënoo gis mbir mi waaye moom rek ngay ngay gis nga yëg ne mënoo jokkoo ak moom te moom rek moo fi nekk ngëlmaane googu ak ak ak doyam ngëlmaane googu ko loolu mooy dund dëgg yàlla fee doyam ngërmaande la yàlla ñu yàlla dimbale bañ xàmmee yàlla ba duñ def yàlla yi ñaari yàlla naan ji ak yàlla ji yàlla ñu yàlla dimbale ci loolu ba nga ñaari yàlla naan yàlla ji ak yàlla ji ak yàlla ko defee wa dabbat mu jukkat alxayaatu dund fi mafasilil axyaa yi ci cëriñuy dund ñi dabibal amali comme jukkat ak mbébét fi qulubil fuqaraa yi ci xolu ñu ñàkk ñi ba fay di ñëwee ci la cër yi commencé dund dund yàlla comme nu mbébét di dundee ci xolu ku ñàkk bu demee ba gis mandarga yi ko mën a def mu woomal noonu la cër yi commencé dund yàlla gannaaw ba nga xamee ni ci bokkaale rek lañ nekkoon fay yi moom fay du isan kon min xatun ilaahiya mayeeg yàlla la li ummatin faadila ñeel xet wu am ngëneel laa yaati lu dikkee ba ci moom illallahu lu ma yàlla yàlla rek ko mën andi walaa yet wi du lem laxaa ñeel ko xasiirun basan walaa yit waa duñ lem laxaa ñeel ko xasiirun basan boo xam ne bu sita tàllal nañ ko basan faydu buñ ko xasee tàllal dara mënatu koo lem mayeeg faydu yàlla rek ko mën a joxe waaw lii la bàyyi xamoon ci commencement ba mooy leen faydu bi laa yumsikuha ahadun wala yaxbisuha ahadun fu suuf si nekk rek faydu bi dana fa yegg kenn du ko téye kenn du ko taxawal parce que basan buñ ko xasee tàllal kenn mënut koo taxawal moo tax boo fi nekkee di jéem a yàq sa bopp nga yàqal rek bis day ñëw mu mel ni mosoo fee nekk tantashiru dafay tasaaroo wa tam tëddu muy tàllalu wa taumu muy matale فايدو فوم متسارو فوم ماتالي كين مونو كوتي وتتلمذو مو دالدي موس العالم عالم بفي ذواقع اي تياف غام اي موسكام لاموي لاموي صاف ادنا بيب دا نتي موس حتى ينسى بام فاتي مو عالم بي تام شهواتي تياف غاي بانيخي ويزيب موسيل فقاعات الغيريات فور اليام يا لا fi maraajili tawxiidi hmm. ci ci ni yàlla alxaalis bi aji sell fayda dana fexe ba yeggale nit ñi wala bi yépp ñu mos caf ngaay wéetal yàlla ba fàtte caf ngaay bànneex bàyyi daan wax ne am nañ fi ay xale yu ndaw yoo xam ne fàtte nañ caf ngaay bànneex ndeysaan am na sax ñuy fàtte seen jabar moom lay wax ne maanaam mandargaay dund yàlla ak yëg yàlla googu bànneex boobu bu nekkee ci yow mais foo nga fàtte leneen foo nga fàtte leneen yooyu loolu ngay noppali ko maanaam boo demul ba yegg ci maqaamaab boo demul ba yegg ci maqaamaab tee sa kurus di jaamu sa borom moo la gënal wéttali ko say xarit yow yow nekk goo ci fayda da wax rek parce que yëgu goo yàlla boo yëgoon yàlla yàlla dàqal la lépp ko daf lay dàqal lépp wéetal ko daf lay dàqal lépp jege ko daf lay dàqal lépp jàngal alxu jàngal alxuraan wala déglu alxuraan bu la gënalut déglu waxi leneen ah, ak ay yeneen yow fay di nekk gut ci yow fay di dafay daf lay dem ba yeggal la foo xam ne yow wéet yàlla ci julli ga buy xam sax doo bëgg mu jeex waaye koo xam ne bu julli ga commencé yaa ngi ngay dégg nga ñu gaaw sëlmal ah ndax yeneen i soxla yoo bëgg a doxi dégg nga mm-hmm. bànneex ba nga yëg ci wàllu àdduna mënoo ko yëg ci yàlla dafa des boo mosee li gën a neex mu fàtt loolu lañ gën a neex lañ gën a neex du fàttaloo nit la ko gën la gën a neex mm-hmm. moo tax doon taalibe Baay jafe de woote ko yomb na waaye doon koo jafe moom moo tax mu doon laajte an samay taalibe gën a jafe kibritul ahmar man mii rek moo ma bëggoon kibritul ahmar danaa war ba bëgg a dee bu fekke danaa ko am danaa war ba bëgg a dee kibritul ahmar ni mu jafee bàyyi nee na doon taalibe moo gën a jafe kon boo doon wër taalibe Baay da ko jeexaat ci biir nit ku ne man la rek moom la bàyyi ne am na nga xale yu ndaw yoo xam ne dem nañ ba fàtte caf ngay bànneex ndax teew ak ñun kuy teew ñun lu bëri ci ay dana fàtte caf ngay bànneex mu ne nit ñi dara yóbbeewul la ñuy wettali ko xew-xewi àdduna yi xewal yi nangam yi loolu di dalal seen xel ñàkk ko di leen indil fitna dara yóbbeewul leen loolu lu mooy gëj gi ñuy géej ci teew ak ñun waaye kuy teew ñun danga dem ba fàtte caf ngay bànneexi ndax am na ay xale yoo xam ne nañ ba yegg foofu ay xale yu ndaw lañ bàyyi na ne ñi ñooy samay bi ñu dem ba fàtte caf ngay bànneex wal xayru fala loolu la wax ku dul kii bokkut ci ana ñi ana ñi maanaam wax ji mooy tekkul ne boo lekkee lekk ga du neex waaye déedéet maanaam wéetali yàlla daf lay gën a neex bànneex ba nga cee yëg dafay ëpp fuuf bànneex ba nga yëg booy wéetalikoo leneen lu dul yàlla bu guddi jotee ba ku nekk wéet ak soppeem yow nga ne man yàlla rek mooy sama soppi tagg sa nelaw yi dem wéet ak moom parce que bànneex bi ngay yëg ci jaamu yàlla guddi mënu koo yëg ci nelaw yi hmm? loolu loolu mooy taalibe Baay de dañ ko wax mu leer loolu ay kaf du wax ku nekk ci yaw ñu xam hmm? coow lu bëri de fay li ko tax a jug fexe ba yeneen yi dañ ci maanaam yi nga xam ne ay fóori rek la comme cin buy baax dana am furit bi ci kaw furit woowu dañ nga wéetal yàlla wéetal yàlla gu sell mhm. waaye fay du mooy loo xam daf lay yóbbu ba nga naan doomu aadama yi diw diw doomu aadama mooy yàlla keneen ki ñeneen ñi jaamam jaamam lañ wala boo kii mooy yàlla leedu yàlla loolu te fay du taxu koo jóg ah. hmm? fay du du mooy loo xam ne dafay ñëw ba nga jël benn doomu aadama naan kii moom mooy yàlla kii déedéet bokkaale googu la la bëgg la moom la nit ñi nekkee woon mu bëgg la fay jëlee bàyyi dafa lu am solo daf ne ci sirul akbar ku ne mën naa ñàkk am taali sëriñ ku ne mën naa ñàkk am sëriñ wala mu am sëriñ bu yeggut ci yàlla ba mu des maj suuf bu fëgg dëndam ne moo yàlla kooku moom foo mu am sëriñ bu mat <laughs> bu dul loolu mu wadd ci fiit ak seytaane ndax maqaama boobu am na lu la mën a def yahud am na lu la a def majus am na lu la mën a def nasara loolu la bàyyi wax yahud yi ñoom ñoo doon wax Uzayru ibnullah Uzayru doomu yàlla wala yàlla nasaraan yi naan Insa doomu yàlla la naan Insa yàlla loolu la fi nasaraan yi nekkee woon de ay diw yàlla la moom loolu paas nañ ko nasaraan yi loolu lañ doon wax hmm? bàyyi na ñu xeetu yonent bi li yàlla defal yonent bi defalul ko Insa te waxuñ na yàlla la ñun ngi sant yàlla ci loolu yow tamit ngir yàlla yonent bi bul tilimal deru bàyyi moom bay wax ne moo yàlla bàyyi yàlla la waaye waxul loolu de waaye def na yàlla rek fi nekk waaye waxul ne moom mooy yàlla ñee ñooy jaam yàlla yi ñeen waaye mosu seen i yi dégg ko dafa am solo la pour nga wax ne jiw mooy yàlla loolu bokkaale la gu feeñ bokkaale googu moom la naafeq yi waxoon Seydina Ali ne ko yaay yàlla Seydina Ali lakk leen loolu bokkaale la dégg nga googu moo tax yàlla rëbb banu Israil ñi nga xam ne nee nañu Isaa yàlla la mhm. bàyyi wax fu lu am solo ci daq ne Isaa du yàlla bàyyi dafa yàgg daq ne nit du yàlla talam dàqee يا Isa du yàlla moo nekk ci nit ñëpp yàlla nee na ummu siddiqatun kaana yaakulaani taam من مسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل أي طعام باين أنا يالا نينا عيسى دافاي لك نيم كوي لك نيم فو مو توجال kooku mënu nekk mënu nekk yàlla bàyyi na lay wi gën a dëgër ne ne Iisaa du yàlla mooy def laa lekk kuy lekk mënu nekk yàlla lu ah, lekk di tojal waaye léegi yow nga jëlal keneen koo xam ne day lekk ne yàlla la yow weddoo njàngaleem ba weddi su ko defee faydu dafa ñëw pour xàmme loola ne yàlla rek fi nekk waaye nag dimbali la ba nga xàmme loolu bu baax a baax waaye doo jaxase pétaal ba naan diw yàlla te diw moom di lekk di naan te bàyyi nee na kuy lekk rek mënul nekk yàlla la yàlla daqee yàlla parce que day lekk jeex na point dégg ku xàmmewu nag dafay jaxase pétaal rek li gën a bon nag mooy ku nekk ci xur wi yaakaar ne mu ngi ci kaw doj loolu mooy réer dëgg xamoo ba pare xamoo ne xamoo fa ngay xamee na xamoo rek mooy fa rëccu du jariñe fu du jariñe waaye nag ah yéen ñuy dugg dugg ci fayda yëpp bàyyi naxul leen bàyyi def bind na ci bàyyi fi ne laa budd an tuqaddima taallum foofu nga jiital jàng fa kullu shiraatin ilaahi wax ki mën nga xarañu sharia du moo wax loolu xam na yàlla mooy xam-xam ci xam yi moo njëkk waaye nag bàyyi nee na moom xam sharia mënu cee ñàkk jàng it mënu cee ñàkk ba pare jàngi woo kon boo réeree ci àll bi te bàyyi nee am na lu ci mën a def nit yahuud ak nasaraan yow boo demee ba dugg ci gaal ñooñu bàyyi tooñu la de yaa tooñ bopp parce que waxoon na la jàngal pour nga mën a mucc ci loolu naqarlu na ci kaset ñun ñëpp ñu dégg mu ne dara sonalu ñu lu mooy sëriñ ci nga xam ne jànguñu noppi woon waaye sëriñ ci nañ jàngi wala ñu nopp waxut nañ xam nañ xam de nañ jàngi Kononnya orang Hmm? Belum jang di gitu, baru hmm. jang. Lain jangi orang noppi. waxaat na sëriñ bi gën a réy Sénégal dara dara ab jaay la xamul dara góorgóorlu leen ngeen dabaatal loolu naqari na ba mu ngi leen wax yéen ndaw ñi ne leen dem leen jàngi ngeen li fi nekk dara ci fi nekk di wax waaw yéen ma yéen ndaw ñi bu ngeen jàngi ëllëg sëriñ si daneen xam waaye bu ngeen jàngu sëriñ ci xamul di wax rek ñoo fi nekk kon yéen a ko mën a dabaatal waaye daf leen jàngaloo de ba pare bind ci téeréem wax imam malik ne ku am tasawuf taamul fiq zindiq la bàyyi ne lu tax muy nekk zindiq mooy fay wax loo xam ne dafay dàq fi yàlla tëraloon lépp atte yàlla yëpp lay farankoore yàlla mosu def nit jàm nit yàlla yow nga def nit yàlla xam nga ne loolu mooy loolu mooy zindiq dëgg war a ñaareel ku jàngu di xuus ci xam-xam bi waxi imam Malik boobu da nga koy gis mu feeñ dàng ci say bët waxi xeefeer lay wax yow nag kenn xeefeer na wax yoo xam ne moom waxi xeefeer hmm? ko defee xàmmee dafa am solo alquran ji nga xam ne ni mooy alquran dëgg-dëgg amee rek la nekk ci kaamil bi wala mu nekk ci dënd ya wala nga di ko jàng ci làmbañ ya alquran jooju est ce que léeg-léeg gu lay xeggale ci alquran dëgg-dëgg ji waaye du alquran dëgg-dëgg ji hmm? du mooy alquran wa waaye xoolal fii alquran la te du moom ndeysaan loolu nag loolu rek moo fi nekk alquran la yaa ngi gis alquran waaye mënoo faa xegg boo jàppee ci bii nag mu xeggale la ci bële boo xamee bii rek yaa ngi nga xam bële. Hmm? waaw loolu war a ñaari da nga gis yàlla di wax yonent bi ne ko ku def ak yow rek yàlla la def ak bu ko defee ku xamul dafay jàpp ne yàlla dafa bëgg wax ne yonent bi yàlla la déedéet daf koo tudd ba pare door a tudd yàlla inna lazina yu bàyyi woon aka inna maa yu bàyyi woon la dañuy jaay ñu jaayanteeg yow ba pare egg ci yàlla boo jàppee ci alquran ji ba pare jàpp ci yàlla boo gisee diw mii gis yàlla tekku ne diw moom yàlla la de waaye boo jokkoo moom rek jokkoo ak yàlla la lay tekk alquran ji mooy alquran waaye jëlal maanaa alxuraan nga sotti ko ci benn téere ndax dañ ko tuddee alxuraan li tax ne ko alxuraan te maanaa alxuraan rek la bu maanaa alxuraan rek moom nga sotti fii lu tax tuddee wuñ ko alxuraan yoratul garaatu alxuraan te pourtant moom rek la kon alxuraan ci ba muy nekk sifatullaay amul xaraf alxuraan ci gannaaw tëjël lii dafay jokkook ñoo xam ni dañoo dañ leen dañ leen feeñal ci melaanu melakaanu mbindéef moo tax moom i xaraf xam xaraf yoo xam ne jomb na ci melu dëgg-dëgg ba melo yàlla xaraf jomb na fa waaye alquran ji melo yàlla te xarafam ci moom daa gis ni yàlla di def de nga ñëwaat defaat maanaa alquran tuddatuñ ko alquran téere tafsir alquran lañ koy tuddee kaadu alquran rek su ko defee melo yi ngeen jàng ñaan leen melo yi mooy melo diw ki mooy melo diw ki mooy melo diw ci cosaanam mm. du jëmm du lekk du naan yooyu melo yàlla rek la eh, yonent melo yàlla la meneen ci kanam melo yàlla rek la mm. du jëmm de seeni xalifa nag moom mën naa am jëmm comme ni nga xamee ne xalifa alquran dëgg-dëgg jëm am nay xaraf mm. seen xalifa lépp lu nekk ca melo wale ñoom dajal nañ ko waaye nag ñoom dañoo am melo yu jomm seen melo dëgg-dëgg ba comme ni nga xam ne alquran ji la nekk ci alquran dëgg-dëgg ji lépp mu ngi fa dajee waaye nag moom dafa am melo yu jomm ci melo alquran dëgg-dëggam ja yaa ngi may dégg xàmmee loolu damay baax su boobaa nag doo jaxase ñaari pétaari alquran yi danga nga xàmmee bu baax ñetteel bi mooy tafsir alquran yi mooy tollook mbooleem mbindeef yi nga xam ni نكون خليفة عمال يويو تاري تفسير بين لدارس القرآن من بين رغم وهي تفسير أمن تفسير القرطبي مفير يكوني بغوي فير يكوني جلالي فير يكوني وباي فير يكوني كنن فير يكوني كنن فير يكوني كنن تفسير يدين لي ليرالال القرآن دي مويلان ak deg deg yi nek ci mom ben bu nek ci ñom bogu dul القرآن القران sax fu nek ni yoruñ sax garaatu yow benn feeñuwaay nga rek buy leeral sa jëmm ji benn feeñuwaay la buy leeral melo sàngam melo woo am na xalifa sa ruuxu gi feeñuwaay la buy leeral melo sàngam kii tamit benn feeñuwaay la ci biir melo kii benn feeñuwaay la kii benn feeñuwaay la benn feeñuwaay kon mbindeef yëpp maa ay maanaa lañ ci melo yooyu waaye duñ melo mu woowu foofu mooy mbindeef mënu nekk yàlla waaye yàlla rek lay wane nag boo ko tuddee yàlla rek yaa ko tuddee téere tafsir alquran yéene yam waxo dëgg waxo dëgg dégg nga kon su ko defee faydu dafa ñëw pour nga dàq lépp saxal yàlla rek te xàmmee ko waaye ñëwut fii pour nga saxal ni lenn mooy yàlla xam na benn waaye bu mu wax ne nit mën naa wax ne diw mooy yàlla kay parce que yàlla wax na ci làmmiñu garab mais yàlla yàlla wax ci làmmiñu garab waaye garab boo xuddi maa yàlla sax nit daf du ko wax boo waxee maa yàlla rek bokkaale nga sëriñ bi maa yàlla sëriñ bi bokkaale rek loolu kenn mënu koo lay yàlla moom mooy wax ne moo yàlla parce que yàlla rek a fi nekk waaye boo yëgee yaa wax ne yaa yàlla rek yaa ngi ci bokkaale yàlla mm-hmm. ngi ci bokkaale yàlla man maa yàlla leneen li leneen la xam loolu du ba kii wut de waxtaan boo xam ne yow ngay aarif boo xam ne xam nga yàlla ci sa jotaay nga ne lii du yàlla lii yàlla la ba mën naa wala boog bu dee maj suub maj suub moom yàlla rek la gis ab nag moom xàmmee na lu nekk jox na ko wàcc waayam te teewut mu ngi dajale lépp def ko leen yow nag boo waxee ne diw yàlla leneen du yàlla ñaar yooyu doonoo ci benn xaw ma loo doon kon doo aarif moom parce que boo doon aarif doo gis ni kii moo yàlla kee du yàlla yàlla rek fi nekk léegi diw moo yàlla ñii ay jaamu yàlla lañ loolu xam nga ne du nekk de wala diw mooy yàlla moo may yonent bi loolu loo ay caaxaan de boo gisee yàlla doo gis leneen lu dul yàlla ndax leneen lu dul yàlla musul nekk te du mos nekk yàlla it musu fee jugee ba fi fekk lenn musu fee jugee bay leneen di fi nekk ak moom leneen sax dafee musul am far yow yaa kiiraay rek bu gis leneen jàpp ne lii nii nangam la yàlla rek musu nekk dégg kon boo ne yàllaa fi nekk mënatoo taxawaat di gisaat keneen mu mën a nekk yàlla ñeneen ñi di nekk ay jàmmam su fekkee ab feeñuwaay nag ab feeñuwaay mm, ci gannaaw tijjiriyaati yàlla yi feeñuwaay boobu nga bëgg wax ne moom mooy yàlla feeñuwaay boobu mën a jàpp naa ne ñoom sax ñu koy wax lañ koy woowee mooy abdu zaati jaamal jëmb ca bàyyi na yonent bi maqaamam yi gën a kawe yàlla jaam la ko fa wooye kon ku ko bëgg def yàlla yaay tooñ de waaye moom defut boppam bi gën a kawe yàlla jaam ko fa bëgg def yàlla yaay yàlla du wax lu amut te moom moo ne bind na moom ne bind na rek nga xam ne lu ñëw loolu noonu mbindeef la du yàlla hmm? Hmm. moom la bàyyi wax ci sirul akbar hmm. ba muy wax tëjëliyaat yi fi muy jaar daf na jaam bi bu yàlla feeñalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana dem ba xam ne anna laa laysa siwa muhammad waaye boobu muhammad laysa huwa llah wa laysa xayruhu day dem ba xam ne yàlla du dara lu mooy yonent bi waaye yonent bi ne moom du yàlla du du leneen lu mooy yàlla mooy dama la waxoon ci jibril mi ñëw ci maqaama dégg nga doomu aadama du jibril moom du jibril te jibril rek la bàyyi misaalee ko seetu nee na la ngay gis ci seetu ba yow la waaye du du yow la ngay gis ci seetu bi yow la waaye du du yow ko defee masar boobu xàmmee ko dafay am solo doomu aadama boo ne mooy yàlla rek nee nga ne yàlla dafa sosu ndax doomu aadama am na jamono amutoon te am na jamono bis bu xaqaay xëpp jeexee ak def tëjëli doomu aadama sax daf du insisté du nekkati kon doomu aadama mënul nekk yàlla yàlla moo mën a nekk yàlla mm-hmm. ndax tëjël lii la goo xam ne dafa feeñ dafa sosu te daf fi jugewaat kooku mënu nekk yàlla mm-hmm. dégg kon daal jàppal ne fayda dafa ñëw pour nga xàmmee yàlla nekkal ko bañ a nekkal leneen mm-hmm. sa baaraam bi mënu laa nekk waaye taxul leneen nekk fi lu ma yow de du dara lu ma yow waaye ndax nekk na la déedéet sam bakkan bi mun laa nekk lu dul feeñuwaay yàlla yi nga xam ni ñoom ñooy feeñuwaay yi dajal lépp comme sa baaraam bi ak sa nopp ak sa loxo yi rek loolu rek la mel mënu nekk yàlla ku wax ne loolu yàlla rek boo la parce que li yow li sa baaraam bi ku wax ne moo yow rek xamul la hmm? waa léegi yow nekk nga fi xale nekk fi waxambaane nekk fi màggat ba nga nekkee xale xale bi amul lu mu bàyyi si yow sa mbooleem jëmm ji mu ngi ci xale ba ndax xale bi mooy yow déedéet xale bi du Muhammad ci misaal grand bi du Muhammad ci misaal paaba du Muhammad ci misaal Muhammad moo boole cër yëpp boole xale ba boole grand ba boole mag ma yooyu yëpp ay melokaanam lañ mu feeñal ko benn par benn waaye benn du ci moom su fekkee jamono xale ba moom mooy Muhammad ba ba Muhammad nekkee mag grand léegi léegi léegi Muhammad nekkatul fi léegi grand fi nekk xale jugee na fi hmm. te xale bi moo doon Mouhamad nekkatut Mouhamad mosu fee bañ jugee mosu fee jugee moom moo fi mos di nekk waaye dafa feeñal melokaanam melokaanu xalem te dara jugu feeñal melokaanu njigiram garaam kon feeñal melokaanu paam loole moo yàlla bu fi jugee ana yàlla leen kon maqaama yu rëy yooyu ngeen gis nga xam ne nii bu yàlla defee tëjali ci maqaam boobu dara du des lépp la koy jox melo yàlla rek la comme ni nga xamee sa waxtu xale sa léppam fa waaye am melo la rek jógee na fa melo garaa ñëwaat mu jógee fa melo màggat ñëwaat yooyu say melo lañ waaye du yow yow nag yaa boole melokaan yooyu yu rëy yooyu yooyu dañoo mel ne ay feeñuwaay rek ci yàlla comme nu sa cër yi nekkee say feeñuwaay nga xam ne boo dee xale yaag feeñuwaay yi benn ànd ci ngay feeñal boo dee ganaar yaag feeñuwaay yi yéen a ci ngay feeñal boo dee paa yaag feeñuwaay yi ci ngay feeñal waaye nag maqaama yi ñoo bokkut moo tax turi yi bokkut waaye kese yaa fa nekk doonu su ko defee nag tijjiriyaat yi am na ci koo xam ne ni moom yàlla dafa dafa taxawee maqaama ci misaal yàlla jox ko lépp waaye taxul mu nekk yàlla kat ndax boobu tijji li dana jàll beneen ñëwaat beneen ñëwaat beneen ñëwaat hmm? moo moo tax loo def yàlla juum yàlla kenn mënu koo nekk moom mooy moom mooy nekk lépp dégg su ko defee euh, jël leneen def ko yàlla daal jàpp naa ne xawlun sàqit wax ju rot la wax ju daanu la taxutu jug fayda tudd loolu mooy fayda su ko defee lii mooy fayda dund yàlla rek xam ko rek jox ko lépp wéetal ko yàlla nañu yàlla may loolu ñu yàlla ba pare di ko jaam li yaakaar naa firi woon naa ko mooy wuy si bu day sooyal ku faatil xayriyaat ci maanaam loolu laa nekk fuuritu leneen yi fi maraajili tawxiid ci ci ni wéetal yàlla al xaalis bu sell leneen yi nag dégg nga sa réer sa gàtt moo tax mën ngaa dem ba yaakaar ne leneen ak leneen leneen yàlla la fekk du yàlla hmm? la loolu lay Cheikh Tidiane di moo tax Hamza bi tafsir boobu ñu si firi ishaarata rabbaaniya commencement bi ku na ko nit di déglu di ko dégluwaat di ko dégluwaat kuy dox ci yàlla balaa muy réer ci àll boobu waaw dana fa leeral ay yoon yoon ne jëmm yàlla ji kenn mënu mënu faa yegg waxit ci yow ci li nga yegg lan la dana fa leeral asmaa wu yeeg sifaat yi rek ñoo fi nekk si misaal koñ bii ñu nekk boo ne tabax yee kër yeeg yooyu mooy koñ bi bu ñu daanee kër yi nag yeneen kër ñëwaat nag ana koñ bi yooyu melo la ci koñ moo tax bu fi jógee it koñ bi ba léegi moo fi nekk léegi nag boo jàppee ne tabax yi mooy koñ bi bis buñ ko fi daanee yow nga koñ bi jógee na fi wala boog boo jàppee ne melo yow war a ñëw ci kanam mooy koñ bi bis bu melo yooyu ñëwee nga ne melo yooyu dafa fekk lu njëkk lu njëkk laa ko fi njëkk yaa xam ne wut rek borom melo yi boo ko xàmmee da ngay xam ne moom musu fee jóge ba fi fekk lenn boo ko xàmmewu nag da am problème loo gis melo la ndax day effacé wu léegi beneen melo feeñaat melo yàlla yi nag laa yeen tax yi du jeex yàlla ñu yàlla may fahm te saxal ñi ci leeri fayda in uridu l islam astantuma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu